loo xamante ne nii ñi leen ko doon jiiñ ci wàllu góor jigéen wala bokk ci wàllu borom ñaari tur yi ñu baal ma waaye gis nañ ni ñoom euh, l'ancien président de la république Macky Sall euh, tenir na au moins benn langage boo xamante ne ni euh, jàpp nañ ni dafa ferme ndax wax na carrément ni que Sénégal li nga xamante ne ni moo di góor jigéen dee ko fi daganal ki nga xamante ne nii nag moo di le leader du parti PASTEF moom ci kàddu yi nga xamante ne ni moom la yëkkati di wax l'homosexualité est tolérée euh, au Sénégal est-ce que loolu euh, kàddu yooyu nan nga ko jangate? waaw xam nga euh, le président Macky Sall ndonte dama ko opposé wu mu ci ngor gi il a eu le courage malgré ce qu'il a dit est très ambigu mais il a eu le courage de dire lu ñu mëna comprendre mu ne man ci sama magistère kenn du fi daganal gor jigen. suñu réew guñu moy li ma la sànq ni la tubaab yi xam ni ñun paré guñu pour daganal mais ci promotion bi lañu toll. le fait que président Macky Sall wax ko rek wax ko rek ñom pour ñom un point le plus bo xolé Ousmane Sonko mang koy jema éviter mo bi bugg ko wax parce que bugg la def promotion bi muy gëna léral mom objectif mais xamnañu ni mënuñ ci dara li la wax la réew mu mënalul sa bop mbir mi mëno ko xex fo xam yow tubaab bi ñoo lay jox li ngay lekk ñoo lay jox li ngay nan ñoo yor sa koom-koom ñoo yor sa kaaraange. ñoo yor sa santé mais ñoo ciy teg charte li waaj naan ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa ñoo ci teg li ngay def te lii dafa bokk ci clause yi. munuñ ci dara li tax nga xam ni Ousmane Sonko mu radical ma doon opposé moo ñëw munu ci wax lu leer nga xam ni. bu doon man mii tamit c'est la même chose du ma ci wax lenn lu leer parce que réew mi moo pariwul saxaw pour taxawaay te am ci taxawaay bu leer loolu daal laa ci mën a d'accord alors dañuy génn ci mais Cheikh ci euh, leneen nous vu euh, euh, cher gi nga ni gi na ci def am donc ak ñuy les acteurs wala le secteur privé Nous waxone ñu waxone ni dañuy dem ci dundu gi ci 15 mai ñu gis ni l'olé ci.

ak dëwlin bi donc mu nekk autant de produits yo xamante ne dañ ko cibler pour euh, accentuer wàññi gi fofu en attendant. waaw xam nga damay ñëw ci conseil ministériel bi nga xamni premier ministre bi président nako wax ci ni limu wax moy affaire bi mënut a wàññeeku ko loolu lool wax de mani je suis vraiment déçu ci manipulation bi nga xamni manipuler nañ ko Sénégalais depuis plus de dix ans presque ñom une existence politique. ba ci weer yu mujj yi sax ci lañ gën a jegee nguur mais ci la ko gën a dëggale mu ni moom gëmul la réalité de l' état Macky Sall bërki démb génn na fii wax ni jamono ji dafa metti guerre yi am ak Ukraine ak bataille yi contournement bi ñuy def ça demande beaucoup de carburant dafay yokk affaire yi mu génn ni loolu ay tappale la ak i ñoñom ba pare ñoom ñu ne ñoom am nañu ay expert ci àdduna bi sur le plan international foo dem ci bitim réew sénégalais yaa nga fa bok nañ ci li doxal aduna bi mais ci sénégalais yoy nek bitim réew ta bok ci ñom mais amu ci kenn ci ñom kenn ku xamone ne affaire bi manam day cher bu ñëwee ñom duñ ko mëna wañi mais man manque de malon manque d'honnêteté bobu non manque manam sax manque de d'honnêteté bobu man moma metti pourquoi ñu manipuler sénégalais ba ñun ñi am xel sax ñu bolé ñu ci biir ñom depuis juróomi at ñu ngi wax am nañu ay sénégalais sur le plan international am nañu sénégalais yo xamni ne sax planète Mars bu ñu jëlee nguur gi dañu leen di jëli indi leen secteur boo jël am nañ ko ci am xam-xam nekk ci expert man gëmoon naa ko sax mais léegi ñoom bi ñu jëlee réew mi xamuñu woon ne bateau yi dañuy contourner ceeb bi mënta yokk diwlin gi mënta yokk meew mi mënta yokk mënta wàññeeku. mënuñu ko wàññi. président Macky Sall ba muy dem. Cheikh est-ce que jàppoon ni également il faut que ngeen tenir compte du fait que yéen yéen a ko doon wax ni euh, ay nit lañu yoo xamante ne nii xëy na ils n'ont pas wala ils ne sont pas assez expérimentés ci wàllu euh, gestion euh, ci wàllu yor nguur loolu mën na jouer ci li nga xamante ne nii xëy na am nañ ko ci ay ambition ñu yaakaar ni c'est réalisable ci benn temps record alors que c'était pas le cas comme ni nga koy waxee mu nekk ay réalité yoo xamante xamante ne dafay nekk ci biir pouvoir yi yu leen dab. non du caage ne ay ay envie la ñu am wala ay ay ay yéene jël réew mi c'est des gens yoo xam dañoo bëgg a nguuru dama la sa benn groupe spécialiste ci wàllu finance. Mm-hmm. ay nit ñoo xam ne xaalis la ñu jàng ñii nekk ay douanier ñii nekk impôt et domaine mm-hmm. ñii nekk ay inspecteur de douane ñoo kompaloo sénégalais yi mm-hmm. dajale jël ay yenn booy jiital leen di tappalee di nar di dajale ba réew mi tegee ci seen kaw xamuñu fu ñu jëm loolu déception la pour képp kuy sénégalais loolu moom mooy dëgg man damaa am gàcce te sénégalais gis nga bu fekkee téeméeri sénégalais ñoo leen woteel juróom-ñaar fukk ak juróom yi ñëpp dañoo juum ñaar fukk ak juróom yi ñoom dañoo def dañoo dof seen bopp yi am koppa ci nekk moo tax ñu topp leen mais ñi nga xam ne juróom non juróom-ñaar fukk ak juróom yi nga xam ne dañoo juum ñoom dañoo am gàcce defi ne ni ah. boo gisee réew seen ndaw fi réew mi kan moo fi toog ne réew mi mel na man maa fi mel man dong ma yow ci réew mi ñu may deglu barke borom Touba parce que juróom ñaar fuk ak juróom yi nga xamni ne ñoo voté dañ leen a voté dañoo juum ñooñu nangu nañu dañu juum moo ñu ne tek di ma deglu. am ci ñaar fuk ak juróom bo xamni ne ñoom dañoo dof dé seen bop mi am seen bop yi ay ndox am ndox ci nek mais il faut ñu wax ak sénégalais lu leer man xamna ni ñoom mënuñoo jëmale réew mi fenn loolu yag na ko xam mais sëñ bi soxna si ana ñun wër nañu àdduna daman la def naa ay rew yu bari biir afrique def ay rew yu bari biir europe def naa asie def naa amérique Afrique ba ma fa demee damaa xam réew yi li leen Sénégal rawe ma jóge fa dem Europe gis li européens yi rawe africains yi ma jóge fa dem Asie gis li asiatique yi rawe européens yi ma jóge fa dem Amérique gis li Amérique rawe ñëpp kon ñun dañuy am les vraies informations du benn moo tax ma ne la ñoom ba nee bëreet laa xam ne ñii diggante bi ñu fi juddu jàng fi ba liggéey fi fukki at ak juróom mais nan lañ fi mën a xamee lu yor am réew yor am réew du nekk spécialiste maîtriser benn domaine yor am réew connaissance ou am capacité wu li ñuy doxal aduna bi tay nga mën a xalaatandoo ñi bind. ya 80 ans ci ginnaw su nekkee stoïcien nga Socrate wala Spinoza wala Karl Marx wala Manam bind katu xam borom xam-xam yi nga xamni ñoy bind li ñuy jang tay il faut nga am nek ci jamono tay. am capacité wu mën a bokk ak ñoom jataay mooy sama genre yi soxlawuñu ay intellectuel ay intelligence sénégalais lañu soxla ñoo xam ni seen xel day am capacité wu di décortiquer les codes culturels de la nature ni jamono bi di Togo, ak li ci am. ñooñu ñoo mën a jëmale réew mi fenn mais du booy